asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jëmale ko ci mboolem mbokk yi fi teew rawatina njabootuk cheikh Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne moom lañ tuddee bis bi di leen tatagal di leen dalal jàmm yéen ak seen mboolem mbokk yi fi nekk yépp ginnaaw loolu ngir njëkkanteeg waxtu wi rek danoo fas yéene seq sëriñ Xalil waxtaan woo xam ni dafay jëm ci ataa u xanaa fil irsi maanaam sunu maam yu baax yi seen participation ci ndono li sëñ Xalil mi ñuy waxtaane nag xan ni mi ñu war a seqal waxtaan wi xan ni yuun ani taxrif kon dana doy ci rek ñu wax ne doomi sëriñ Moustapha Habsala moom sëriñ Modou Awa la ak soxna Mominatu moom sëriñ Saalix jànge alxuraan ci kër Masayar ci sëriñ bay Xari xam-xamit mu jànge ko Daaru Minam Saalum ak kër sëriñ bu bi mu jógee ci loolu nag dem ci daaray sëriñ Saalix yi di fa jàngale kon boroom xam-xam la gëstukat la faqiix la adib la waykat la boo xam ne way na ci araab way ci olof bind ci araaf ci arab bind ci olof kon doy na rek ñu ne mbokk la muy dund turaas mii ñuy waxtaanee te di ko dundal jataay bi ñu nar a seq ak moom nag ci te ci ton tomb yi rek la jëm ñu xamal lan mooy turaas ci loxo ak istilaax danañu xamal ak turaas fil quran ndono ci alquran danañu xamal at turaas ci hadis danañ seq ak moom tamit waxtaan ci Cheikhul Khadim moom gis-gisam ci turaas buñ jàllee ca loolu ñu ñëw tamit ci Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne ak ñu mel na moom li ñu def ci turaas bi ak ñëw ci tamit maa yamtaasu bihil muridoona fi turaasin li nga xam ne dana fés dana feeñ ci murid yi ci ndono li ak naka la ñuy sàmmee ndono li kon dañuy jox kàddu gi sëriñ Xalil mu nuyoo ak mbokk yi te jàll ci laaj bu njëkk bi mooy maxna turaal loxatan wastilaan sëñ Xalil bisimilah tafaddal maskura di nuyu waa daayira bi nga xam ne ñooy sëti Sëriñ Abdou Lahad te euh, ay sang ak ay doomi ndey composé ko maa ngi nuyu sang yi di leen wax ne xëy na su waxtaanee ba noppi ñu ñàkk euh, ay mbubb ñu jox ma ko ginnaaw kenn jox ko ma ci mbubb sang yooyu itam ma di ko jàllale ci waa kër sëñ Baara yi nga xam ne ñoo fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy bisu suñu ab laxaat di nuyu doomi ndey ñoo itam di wax sëriñ Basiru Kure ne ko yab na uma laa taxus bi liggéeyati wala bi rasiya fekkee wax naa lu xaw a juunu ngeen jéggal ma ko sant lool nag ci eh, ëtt bi ñu ma woowee ndax ku fi am ab cër laa ci ñaari wet yépp ndax kenn umpalewul suñu maam ji nekkoon fii eh, suñu maam yi eh, maam Thierno moo leen fi indiwoon loolu cër la sama way jur itam sëñ Abdou Lahad ko su defee nag ko waxee léegi da doon ñu leeral baat di ndono su ñu demee ba ci biir léeg-léeg ñu tudd baat yu ndóob moom bu ko defee ñu xam lépp ci biir baat yooyu la dugg ndono suñ ko waxee ak turaas mi ngi jóge ci warisa yarisu turaasan euh, wala irsan léeg-léeg wax aada aada wala orfu wala saqaafa muy culture wala azar ay jeexital wala xadaara wala umma yooyu yëpp ci biir waxtaan yi suñ ko tuddee day dugg ci loolu ñu waxtaane léegi muy ndono ndax bari yooyu ma wax léegi yëpp daanaka ñoo bokk na ci kon daal bu doon tënk ginnaaw waxtu bi day dem ndono mooy loo xam ne Euh, maam yee ko fi bàyyi ci ay wax wala ay jëf wala ay comportement euh, ñu euh, topp seen mboor ci wàllu boobu di ko bu doon dëkk rek ci xam leen ndono loolu mooy ndono ci anamu gàttal. jërëjëf sëñ Xalil kon du laa wax li aay nga waxoon léegi laa tax bi waaye li ma lay wax rek mooy. واجعل ci alxuraas alxuraan ndono waaw ndono ci alxuraan alxuraan ndono daf ko jàppe ñaari façon bu baax ak boo xam ne baaxul bi nga xam ne moo baaxul moom lay nettali lu bari ñooñu nga xam ne su fekkee yónni na ay yónni bu ñëwee lañuy wax ne lii moom la fi ñuy bàyyi bàyyi woon kon kenn mënuñu cee génne inna wajadnaa abaana ala ummatin wa inna ala asaarihim muqtadoon nga xam ne lu ñu jéem a xam loolu fi seen bàyyi bàyyi woon lu doon donte lu war la sax wala donte indil lañ leen lu gën li seen bàyyi indi woon wala seen bàyyi sax xamuñu woon dara teewul lañuy mooy ca seen bàyyi bàyyi woon qul aw kaana aabaa'ukum laa ya'lamuuna shay'an wa ba sax suñ leen indiloon lu gën li seeni bàyyi nekkoon teewul dañuy ngoy ci loolu nga xam ne moom lañ jàppal qul bi ahda mimma wajadtum euh, euh, la sëñ bi woy ak fulla dañu nuróoti bokkuñ nee na woy loo ko si jàpp donte gis nga lu ko gën nee na kenn du la ko mën a tax a fulla nag mooy li nga jàpp boo gisee lu ko gën a baax da ngay bàyyi loola dem ci li gën a baax kon bu njëkk bi e, e, boobu baaxul bi ko ñaareel mooy bi nga xam ne e, mooy bi ma njëkk bi nga xam ne yonent yi yàlla daan yónni dañuy ñëw pour nga xam ne nga xam ne bi yonente yëpp ñëwee moom lañ moom mooy li doon seen itte mooy dindi ko bi wax naan ba ko jaa boobu nga xam ne bu baaxul la façon bu baax mooy xam ne moom la digle ñu di ko jàpp di ko fonk loolu nga xam ne wax tabaxtu millata abaayi Ibrahima wa Isaaqa wa Yaqub Ismaayil Isaaqa wa Yaqub ak li muy wax naan wallazina amanu wa tabaahum zurriyatuhum bi imaanin ñi nga xam ne dañoo gëm seeni sët yi ñëw seen ginnaaw xeeñtu seen mboor jaar jaaroon ñooñu nga xam ne moom la nangu mooy ñu di ko ndono boobu mooy li nga xam ne moom la joxoñ ñu di ko jëmmal di ko fonk di nettali histoire yi ña nga xam ne ñoo ko bàyyiloo seeni maam ngir ñu jaar ci seen faj jaaroon lu doon boobu la woykat boo xam ne bi abi ndono boobu mooy aada ji nga xam bu baax di yu bare bare euh, ci la ko yar maanaam da ko nangu euh, boole ko ci sariya bi nga xam ne moom la indi woon nga xam ne fukki balluwaay yi nga xam ne mooy almasalil ashra yi usul li jàngale loolu ndon la boobu ci la bokk te mooy al nga xam ne bi mu ñëwee yu baree bari fekk na ma mujtama bi nga xam ne moom la yónnoon yonent bi ñu di ko pratiquer ci yoo xam ne dañ ko miinoon waaye ñu ñëwee tëru leen ko daf leen ci encouragé sax danañ ci ñëw léegi ci kanam kon euh, ñaari façon doon yooyu moo am bu baax ak bu bon bi kon bu bon bu baax boobu mooy bi nga xam ne moom la ñu war di waxtaanee moom la ñu war di fàttaliku faqsus qasasa la'allahum yatafakkarun nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ulaa'ika allazina 'ahada Allahu fa bi'ahdihim muqtadin kon ndono bu baax boobu mooy bi nga xam ne moom mooy li ñu yëkkati mooy bi nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaanee incha allah. jërëjëf sëriñ Khalil tomb boobu leer lool kon xamal nga ñu ne doon ñaar la. mahmuum ak ma bi nga xam ne dañ koo nga ñëwal rek ci aturaas ci hadis ndono wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem téere yi nga xam ne ñoo wàcc ak kutub samawiya yi yàlla wàcce yépp bi mu ñëwee ndono la ci moom ndax yépp dañ koy jël dëxëñ ko ci biir alxuraan kon loolu mbooleem diine yi jiite woon diine islaam loolu ndonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee moo tax mbooleem li nga xam ne fekk na ko ci ay diine léeg-léeg ñu ci bare bare daf ko bàyyi ñu continuer di ko pratiquer mu boole ko sax ci diineem fekk nañuy woor bisu tamxarit mu ne dañ ci fàttali Musaa mu ne kon ñun ñoo gën a yàlla ci ñoo leen gën a yàlla ñoom yëhoot yi ci Moussa fekk na fi ay aada yu bari yoo xam ne yu baax la mu toléré ko nangu ko moo tax cen lu jiitu lislaam dañ ko daan def ñëwee mu nangu ko xamle nañ ko daan fekk na fi ay fet ngawar yooyu yëpp di ay aada yoo xam ne bi mu ñëwee daf ko leeralaat soññeewaat ci ba nga xam ne euh, xamle ne loolu ci ndonal lislaam la bokk fekk na euh, ay ndon yoo xam ne dañ ko doon def mu tere ko ginnaaw bi ñu gis ca dara mu ne continuer leen ci ni ngeen doon def fekk na waa Madina di góoral seeni tàndarma mu tere ko ginnaaw bi tàndarma yi meññatul mu ne leen continuer leen ni ngeen ko doon defee ndax yéen a ma gën a xam seen àdduna nee na Aïcha fekkote la ne sa gaañ yi doog gi ñu doog a dugg lislaam kon dinaa ñëw fondation Kaaba bi ma dindi ko tabax ko fi nga xam ne fi la nekkoon ndax jàpp na ne foofu mu nekkoon bokk la fi ko Ismaayil te ko kon ndono for na foraay boo xam ne léeg-léeg dana sàmmante moom ba lu bëgg na def sax léeg-léeg du ko def léeg-léeg itam dana ko fekk mu mel ni daanaka ña def day mel ni ab yónnatee leen yónni yónnatee leen ko wax ndax sellaay ga ak ndax dëppoo eh, yàlla bëggee kon ci yonent bi sallallahu alayhi bari yoo xam ne ay ndono yuñ fi yu yuñ daan def bi mu ñëwee wéeru ko mu bokk ci lislaam nga xam ne kon day mel li ëpp ci atte yi ndonol yu fekkoon la di yu baax mu saxal ko eh, wax ña ko doon def ñu continuer di ko def kon ci gàttal euh, loolu mooy ñu ci wàllu ndono ci yoon bi salaam salaam. jërëjëf Cheikh Aliou kon ngir njëkkanteeg waxtu bi tamit nga ñëwoon ñu ci entourage xëy na Cheikh moom ni mu gisee ndono. waaw Serigne Touba itam dafa dikk ngir beesal islaam donnu yonent bi alayhi salaatu wasalaam. lu euh, xamle ne li yonent bi bëgg lay bëgg li muy bañ lay bañ kon ni yonent bi fekk woon ay ndono ci société bi mu ñëwoon sëñ bi noonu la fekkee ci société bi mu nekkoon ay yu yu yu ñuy ndono yu ñuy jëfle yu ñuy jëfandikoo yoo xam ne am na lu tere xamle ne moom ci boppam ndonoom moom sëñ Tuubaa mooy alxuraan ak xadis bi xidmatil kitaabi wal xadis yi yasbutu laa bi zahamin mawrusi liggéeyee alxuraan ak xadis man sama ndono ci foofu la nekk waaye nekkul ci ay wurus ak xaalis ak matériel loolu moo tax bi muy ñaanal ay doomam ñaanalul leen xaalis ñaanalul leen daraja waaye ndono loolu mu wax moom la leen ñaanal muy xam-xam ak jëfe xam-xam moo tax mu ne mun na alaya wa ala awlaadi bil ilmi wal amali wal isaani sama njaboot gi may leen xam-xam ak jëfe xam-xam ak isaat mooy mën a texeel ko ànd ak ñoom mën a dimbali ko ànd ak ñoom wa tamxu jahliya wa jahla man alit bil ilmi waj'alni sa'idan yujtahid faral ak réer ak réerub mbooleem koo xam ne dana bawoo ci man ci ay doom te may leen xam-xam boo xam ne dañ koy jëfe kon ndondol li nga xam ne moom la jàpp ne ku koy donn moom ku koy donnee bi muy ñaanal doomam yi ko war a donn ñaanalu leen alal ñaanalu moom la laa xam ne moom moo moo yëskutu laa si kon sëriñ Touba mbiram ci wàllum dono mooy nii yonent bi sallallahu alayhi mbiram demee ci wàllum dono fekk na ci société ay nit moom sëriñ Touba ñoo xam ne dañuy jël alxuraan di ko jàng di ko foyee di ko puukaréewoo di ko laawaat mu xam leen xamal leen alxuraan ni mu màggee ak ni ñu ko war a màggale xamal leen ñoom ni ëppee di jël alxuraan di ko jënd àdduna indi beneen ndono bu bees beneen aada bu bees te mooy màggal alxuraan màggal ñi mokkal alxuraan ba loolu doon lu xel fekk fi ndono ay nit ñu baax ñu mokkal alxuraan ne ko fa ñukk di ànd ak yi di di di jaxasoo di dabu mu euh, xamal leen ne euh, ëpp ngeen loolu defal leen teraanga joo xam ne euh, kenn ku ne ci ñoom la buur di lekk ngay lekk fa buur di tëdd ngay tëdd te kuy rey buur tegg la ni ko sëriñ bees mooy ki euh, doomu soxna ne am na loom loo xam ne warul doyaleeti warul euh, suufee warul kenn loolu ndono bu bees loo xam ne indi na ko ci société bi mu fekk it Euh, borom xam-xam yi jàppe xam-xam muy raaya muy loo xam ne boo ca boo boo xamee xam-xam àgg nga ci dayoo ba mu xamal leen ne xam-xam du raaya waaye wasiila la nga see jaare pour jub waaye du caagin soo amee xam-xam rek jub nga euh, loolu mu indi ci euh, matlabu shifaa yi ay bayit yoo xam ne ni mu ko tegalee واجعل جميع علمائي عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصرين واجعل جميع الناصرين صالحين واجعل جميع الصالحين فائزين diggante al ulama ba ci faisin li ci nekk ci ay melokaan nga xam ne borom xam-xam bi dafa war a jëfe xam-xamam ba noppi eh, sellal ko ba noppi dëddu ba noppi dëggu ba noppi eh, laabiree ko ñeneen ba noppi nag doog a nekk fais xam ne diggante al ilm ak fawz li fi nekk ci ay eh, melokaan yoo xam ne ki xam war na ko melowoo loolu tegtale ne xam rek doonul maanaam raaya bi doonul li nga xam ne moo tax na jug eh, kii jàng waaye xam ak jëfe li nga xam ne moom nga doon kon loolu itam wane na ko ci ay waxtaanam yu bari yoo xam ne eh, day gudd waaye xam leen ci ne xam-xam doonul li tax a nit ki waaye defaru mooy li nga xam ne moo moo moo moo moo taxoon na ñu koy ni nga xam ne moom Serigne Touba ni la doon ne moom yonent ni mu woon mbooleem euh, yonent yi ko jiitu Serigne bi bi mu noonu la doon ne mbooleem wàll yi nga xam ne euh, ñoo ko jiitu doonul seen mbóot doonul seen werd nga xam ne mbooleem. ñoom ñooñu seen i werd euh, donn na ko ba euh, jël ko di ko jox murid yi nga xam ne ñoo nekkoon noonu la ko Serigne Moussa waxee doon ngay mbóot ci gaa yu baax yi fi nekkoon euh, dem ba alxuraan mu xamle ne ndonoom la wa arsal kitaaba lazina stafayna min baadinaa mu xamle ne moom ci boppam yàlla jox na ko alxuraan ne ko sa ndono la ba loolu ku ne gis ndonale ni feeñee ci li koy murit yi mokkale ak ni koy bindee loolu tegtale ne maanaam kon ndono loolu ñu ko yàlla jox lu wér mu donn ba donn yéefar yi kër yi nga xam ne ñoom moom la ñu war a ci àjjana euh, xam le ne ne yàlla jox na ko ko ak suñu jaamu woon yàlla tiyaaba ji war naa ci jaamu gi mu xam le loolu lépp yàlla jël na ko doon na ko jox ko li jadarabi bil manazil lada taharudi mutayiban lil xarada inni jaaltuha hadaya li sihab radiya anhum man xamaani an sahab nee na yàlla may na ma kër yi yi nga xam ne moom la yéefar yi war na am ci àjjana waaye ma jëlaat ko jox ko saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ngénte bi di ko liggéeyal ujuruhum law abadu lii wusilat bil imtihaan min rabbina fa wasalat tiyaaba ji ñu waroon am bu ñu jaamoon yàlla loolu rek tiyaaba ji suñu borom doonal na jox na ma ko euh, ba lépp mi ngi sax loolu mu ndono loolu moom sëriñ bi mu bàyyi xel ci ne euh, war a doon lu continuer mu ñaan yàlla mu bañ a génnati ab ëttëm wala tudxil musliha fi yadi wa fi daari wa sabitan bil haadi wa fi bi ko defee euh, mu jël ndono loolu muy jikko yooyu nga xam ne moom la doon liggéeyee ci nit ñi lépp mu séddale ko ci ñi nga xam ne ñoo ko jëkk topp ci ay murit nga xam ne moom day mel ni mooy université bi mbooleem mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci kippaaram doon faculté yi doon kulliyaat yi nga xam ne kenn ku nekk am na loo mën a jànge ci moom moom mag moomu comme ni ngeen ko indee ci euh, mawduu bi te mooy ataaru masaayil masaayil fil irs maa in nuriidu namozajan fi xaslatin illaa wa nulfiiha ladal abaay jikko ñu bëgg bu rafet ñi nekkoon ci keppaaru sëriñ bi am na ci koo xam ne faculté la boo xam ne man nga caa jàng jikko booba ba mu jeex tàkk hal min mudaanin ibrafal fi himmatin ulya wa sidq iradatin wa saxaay ndax Ibra Fall positif euh, ak dëggu ak loo am jox ko yàlla ndax loolu kenn jege na ko ci aw hal yu daana Ibra Faati bi almihi wa salaatihi wa bi yumnihi wa zakaayi Ibra Faati ci xam-xam ba euh, ak euh, jaamu yàlla nga ndax kenn jege na ko ci maa in rajulan ka sëñ daama abdukum fii naflihi bi kitaabi rabbi samaay gisuma ku mel ni sëñ daam abdourahman ci ñeme taxaw guddi di naafila nga xam ne kaamil bi dañu wax ne daf ko daan def ñaari xaaj ci guddi bu nekk wa kasaaka lastu ara ka mislima sàmba fii nafaqaati yi tatra ala alfuqara ma sàmba ni mu lu mu am euh, di ko dépenser ci yoon yàlla di ko dimbalee nit ñi ba àgg sax ci lépp di joxe kooku bu ñu tuddee tab ab facilité la ci boo xam ne mën na sa caa jànge tab ba tab jeex wa banukumu xayru namaasiji lil wara wa banaatukum asbahna xayra nisaa sa doom yu góor yi ñooy ngën ji modèle yoo xam ne li ñu bëgg ci ay jikko yu rafet ñu ngi ci ñoom sa doom yu jigéen ñi ñoom itam royu teef lañ ci mbooleem jigéen ñi jamono ci ay jikko yu baax kon sëriñ bi dafa waajaloon ndonoom li ci mu am continuité maanaam bañ a yam ci moom ak ñi nekkoon ci keppaaram rek waaye dafa ko waajaloon noonu ko euh, euh, tubaab yi doon wax ne moom dafa mel ni dafa bëgg balaa bàyyi créer Ahmadou Bamba yu bari waaye defaraat ay Ahmadou yu bari ñoo ñuy defaraat ay Ahmadou yu bari ba ndono li e, ba àddunay tukki dafiy nekk ndax ni ko waajale nga xam ne e, islaax boobu ñaan na mu sax ci ëttam bañ fee génnati moo tax kon ñi wax naa ne illam tulaaqi muslihan fal taktafi bima bihi nassa xiyaaru salafi loolu damay jàpp ne man de àgguñ ci ndax jamono bu nekk ak defar day gën di feeñ euh, euh, jamono bu nekk lay nga xam ne moom la taalal ci euh, leeram boobu day gën di yànji di gën di jolli ni nga xam ne ni la ko waxee ci nuur dare ni waccaxal fu yoon da kalkal yi mu niira xulóom yi xes bi ka wa noora yi nga xam ne mooy leer yi jógee ci sama xol di projecteur di dem ci murid yi def ko mu doon leer gu yànji koo xam ne day leeral xulóo ba xis bik maanaam mooy murit yi nekk ci roon keppaaru sëriñ kon nag yaakaar naa loolu ndono la loo xam ne euh, mën nañ ci rafet njort te xam ne euh, yàlla ko sàmmal jamono ñi léegi ñu bëggoon tamit nga ñëwal ñi rek ci euh, dawrul masaayix ci turaas ginnaaw cours bu njëkk boobu nga ñëwal ñu ci cours bi nga xam ne moo ci topp incha allah waaw loolu itam murit yi ci boppam dañoo am ràññiku boo xam ne dañ ko ràññiku ci ay wax ak i jëf ak i comportement yoo xam ne loolee day delluwaat ci ki nga xam ne mooy seenu sëriñ di sëriñ Touba ni ko sëriñ Abdoulaye daan waxee murit aw tur la jëmm ji tur wu ne jëmm lay woo jëmm ji mooy sëriñ Touba kon melokaan yi nga xam ne moom la murit yi mel nii ba boo gisee murit doo ko naatal li xam ne kii murit la ci ay wax yu tegginu ak i jëfin yu tegginu loolu ci sëriñ bi lay delluwaat bi moo doon yaare noonu bokk na ci yooyu teggin ci ay wax nga xam ne murit bu waxee automatiquement da xam ne kii am murit la euh, loolu yi day dellu ci sëriñ bi sëriñ bi ci boppam ni ñu koy waxee dafa doon ku xaw a naqaree waxal nii maanaam baatu déet rek da ko daan dafa dawul nangu ku koy wax ak moom bu la laajee nga ne déedéet day ni wax jooju génn na ci moo taxoon ñoom ñuy wut seeni waxiin yoo xam ne danañ fexe ba wax moom ci anam koo xam ne la mu bëgg a laaj dañ ko tontu euh, nga xam ne safaan day mel ni safaan ci boppam moom la bañoon ku ko jaarale ci noppam lii waykat ba waxoon ne fa innal la tubridu man qaalaha waaye moom baatu laa wala xawma wala wóoruma loolu daf ko daf ko bañoon ku koy ku koy tontu su ko masaan gis nga ko mu ne ko maa ngi koy bëgg a gis nga xam ne euh, gisuma ko du ko du ko mën a wax ñu nettali ne am na benn bis njaareem ñuy yuuxu ab sàcc euh, sëñ bi di laaj lu mu doon ñu ne cell kenn ñi mu wut wax ab sàcc la mel na mag dandu si ba jege ci moom daan ne ko mbàkki kooku de dafa romb yëfi jàmbur yoo xam ne mayuñu ko ko saraxuñ ko ko mu sàkk ci ab yóbbal ñu di ko bijjante nag mu yokk jéego yi kon sëñ bi daal xam léegi li mu bëgg wax dafa jëlee fi jàmbur mu daan ne ndaxam euh, yeneen mooy yàlla yépp noonu la demee de loo ci def pourtant ci yow yoon dana am ne loolu daf ci jàngale waxiin ba mujj ñoom ab safaan day mel ne duñ ko mën a wax loolu tax waxiin yu bari yi yi ci murid nga koy dégg dafa faatu duñ ko wax dafa wàcc liggéey ana sëñ bi mu ñu ne day dàll walla ñu dafa jàpp façon wax yooyu yëpp nga xam ne euh, ci ni mu miina woon wax yi nu wax sëriñ bi loolaa tax wax yi nu dem ba lépp day rafet jëfi bi rafet nga xam ne lu rafet sax dañu ko ne dafa murite bokk na ci ndono yooyu ni ma ko waxee léegi teggin teggin nga xam ne mooy lépp mooy di sëriñ wax ne is kullu بدونه راء اتباع فإنه يحرم فوزا وانتفاع ku sàkk dara moo xam jaamu yàlla la wala mbiru àdduna ci lu dul teggin kooku du réussir mukk yuhram fawzun wantifaa du jariñu du réussir doy ci misaal rek ci àdduna benn xale boo xam ne dafa doon bind lettre lettre de demande euh, ci ab liggéey bu mu bëggoon ci benn këru liggéeyukaay ñu gàpp ko ma di ko laaj lu tax ñu gàpp la mu ne waaye di daf ko ne ni ngay wax yi ni nga moo ñàkkite gën ndax da ne ko da ne ci nangam ci nangam ci mel ni kuy wax sa morom loolu da nga ko waroon a waxee waxin bu gën a kilifaa loolu nga dégg ci ne kon teggin ci ay wax ba ci jëflante kàddu na mën na laa xay lu rawatina nag sa diggante sa borom loolu di loo xam ne sëriñ bi daf ci yar murid yi ba kenn ku ne ci ñoom boo waxee wala ngay jëf day ràññee ci ñeneen ñu dul ñoom teggin waxin la ci teggi ni ngay teggee yëf yi xam nga li wax ci nax ju xadaayil xaaj su fekkee wala taqul li ahadin kazabta aw qulta gayra xaq aw axtaxta bul wax kenn fen nga wala wax nga dul dëgg wala juum nga kon waa ji bu fenee nooy def mu ne kon wax ko weneen waxin woo xam ne euh, dana xam ne gëmoo li mu wax te du ca mer loolu kon teggin la maanaam da teggi wax ji jaare ko feneen koo xam ne euh, fexe nga bax waa xam li nga bëgg wax moo tax sëriñ bi daal wax naan tubaab day yaru te du am teggin civilisé te du laab yaru gi mooy bu gisee kilifaam war ma ji laaj lépp dana ko jox waaye suñu tàmbalee discuter su kilifa gi waxee lu dul dëgg daf koy wax da ngay fen nga xam ne kon teggin moo ko doon wax ni nga war a def ba mu xam ne day fen te doo ko jaar ci digg bi bokk na ci ndonal murit gi li nga xam ne ràññi ko nañ ci lool mooy tegginu ak ki nga xam ne moo la féete mag ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi bi muy riñaan ba àgg ci asamaan yooyu ni ko sëñ bi nettalee nga xam ne day mel ni teggin yu foofu mu jàngale leen teggin yu rëy te mooy bi ñu agsee ba gis ne kii mooy ki yàlla mujjee yónni moo moom la jël teg ko seen kaw ñu daal di koy nangu wormaal ko xat xaddamoohu iswaajoohu waxtaramoohu zawi naqaay jiital nañ ko ba ñu ko bi bi ñu ko nee jàkk rek xam ne kii mooy Mouhamed dañ ko jël jiital ko wormaal ko waaye nag worma joo xam ne ci seen xol lañ ko jëlee zawi naqaay te daw bil marhabi wa sahli wa taadubi wal bishri wa taqarrubi li rabihi lmuqaddim ñu gaaw di ko wax marhaban ahlan wa sahlan di ko woon mbégte ngir yàlla mi nga xam ne moo ko jël teg ko ci seen kaw ñu warmaal ko li wa ci waaye la riyaa sëñ bi képp koo xam ne ku ko féete woon ak bag la daf la joxoon warma Euh, laataa muy dem ba nekk ndonal yonent bi sallallahu alayhi noonu ni la yare woon ñoom ñëpp ba kenn ku nekk ci mag ñi euh, lu mu am xam-xam ak lu mu am alal day suufe doo yëg ni kii denc na dara wala xam na dara yaraw na anfusahum doonal wara abadan wa annahum lam yaliqoo bil karamaat ni mag mi waxe ne yàlla ba lay takkal ab garab ci sa ginnaaw la koy takk ñii ci sa ginnaaw rek ñoo koy mën a gis nitu ko àdduna bu lay takkal ab garaat ci sa mbagg la koy takk moo tax léeg-léeg day gaaw a ñi ak maqaama yi nga xam ne ñoom lañ amoon ak melokaan yi meloon ak ni ñu sorewoon ci suñ borom ni lañu woyof woon ni lañu wàcce woon seen bopp ànd ak xam-xam bari ba ànd ak euh, daraja jëleen yàlla joxoon ak mbooloo yëleen yàlla joxoon loolu tax na lu waay bari xam-xam ak lu waay bari alal ak lu waay am kattan sëriñ bi tàggat na leen ba duñ gisati loolu kooku ñuy nettali ne dafa ñëwoon ci sëñ bi di ko euh, wax ne ko mbàkke surtout ak yow ma kañu xam-xam bu bari sëñ bi ne ko noonu de leen xamoo ko su néew dañ ne woon siiwa jëfe ko nee na ma ne tontu mel ni Moussa Sampale nee na am na benn téere bu sëñ bi yoroon di ko yër nii nee na yëwuma ci loolu waaye mooy yokkante ko di jéem xool téere bi nee waaye téere bi lu ab xaj xamul ci ngañ yi nee na xawma ko ci téere bi nga daal di gis kooku ni ko sëñ bi xamalee ne xam-xam li muy am solo euh, du dayoo ba nga xam ne moo tax a ñu euh, alal itam noonu la leen ci yare ba kenn ku nekk looy def yàlla rek tax nga ko def kii ñëwoon jox ko xaalis bu bari def ko ci am mbuus sëñ bi ne ko tegal ne mu teg ne waaye mu toog ba mu yàgg mu ne ko nangam la ci xaalis sëñ bi ne cell ba keneen ñëwaat indiwaat lu ëpp la kooku indi woon sëñ bi ne ko wàññal ma li kii indi ndax da ko indi te waxuma ko waxuma li benn tool yi wàññal ko nga daan gis ne yar na ko xamal na ko ne ko li ngay joxe yàlla rek moo war a tax waaye warul am loo ci euh, bàyyi xel kon euh, ci gàttal ñu gàttal loolu mooy li nga xam ne moo aju ci wàllu euh, place intermédiaire. jërëjëf sëñ Xadim dafa mel ne ñu defee ci waxtu bariwul ci ay juróom-ñetti lay toll. kon nga ñëw ñëwal ñu ci daawu trois bu defee ñu àggale leen si programme bi. waaw sëñ Abdou Lahad euh, comme waxtu bi mi ngi xat suñ ko doon gàttal rek moom euh, sëñ Touba la jëmmalaat moom sëñ Touba ni mu donnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax mooy ñetteelu xalifa Osmaan moo doon ñetteelu xalifa. Eh, Ousmane moo tadwin alxuraan moo ko dajale moo yokku jumaay Madina ji sëñ Abdou Lahad di def ci maktaba bi yokku jumaa ji loolu firndeel na doon gi Sëriñ Tuubaa doon yonent bi ba mbooleem ñi ko doon ak ginnaaw bi eh, nuroo ak moom ci ñooy ñu doon yonent bi waaye bokk na ci nga xam ne rek war nañ koo roy ci moom mooy ñi nga xam ne ni la jànge woon digg arab mën a woy am ay diwaan yi ay woy yu bari waaye buy wax wolof benn baatu arab doom ci dégg wala baatu français loolu yaakaar naa ndoon la loo xam ne war nañ koo roy ci moom baax war nañoo roy ci moom itam ni mu ni ko yàlla joxe woon ak ni mu suufeele boppam euh, ni sëñ Tuubaa waxee ne waliyahab wahab waliyahab mahabatan ka lays maa tawaadui bi jaahil ays may ma ak raglu ba mel ni gaynde waaye nag nooy toroxlu euh, may ma lu mel noonu sëñ Abdou Lahad loolu ndon la loo xam ne lu feeñal ci moom la muy euh, raglu ba kenn ku dëng du ko ñeme waaye itam nooy ci biir mboolem yi nga xam ne moom la fi réalisé ci ak xilaafaam yëpp ay ndono la yoo xam ne day mel ne suñ ko doon tënk lu ci nekk euh, ndono la lu ay loo xam ne euh, suñu ko sàmmee bokk na ci ndono yi gën a rëy ci euh, yoon yi ginnaaw xam naa day mel ne dañuy tënk rek waaye li mu liggéey ci dëkk bi ci dindi fii loolu ma wax ci introduction bi ci ay ay yu bon yu fi nekkoon yu fekk undur ila al mutaxinin aw unduru lil mudminin alxamra wal muqaamirin in zajaru bil xasari ñi doon tux cigarette ñi doon naan sàngara ñi doon carte ñi doon def loolu yëpp xeex naa ak ñoom ci diir bi xam ne moom la fi nekk euh, ba laabal Tuubaa ci yooyu yëpp doo koy jëmmal yooyu ko jëmmal ci ay euh, yi bi cité ne mooy ndonoom muy alxuraan ak xaddis defal ko kër goo xam ne la fa loola laaj yëpp ci ay doomam def na ko fa loolu suñ doon gàttal xam naa waxtu wi xat ne wax ki nañ ci bàyyi loolu daanaka. Euh, jërëjëf sëñ Xali kon ngir sàmmoon te waxtu wi ci ñeenti bi jëm juróom bi nga ñëwal ñu ci nag ndono yi nga waxtaane te leeral ko ba mu leer nañ naka lañ ko war samedi ñu tëjee loolu incha allah waaw loolu itam ci tàmbali bi waxoon nañ ne euh, ndono mooy al urf mooy aada mooy li miin aada nag tataxayaru bi taxayuru zamani wal makaan loolu la ñuy jàngale usul wax kon atte yi nga xam ne moo lalu ci aada dafay soppiku ànd ak jamono ixtilaaf léeg ñu naan ixtilaafu asrin wa zaman kon laaj na mbooleem lu fi nekk ci ay ndono ñu beesal ko ni nga xam ne moom la jamono laaj dañuy tënk rek ci yi nga xam ne moom la ñu si ñàpp laxaat bàyyi mu wax ci ndono yi day mel ni li li mu niseeroon lenn rek moo ci sotteegul colet muy université loolu yaakaar naa ci ndol yi gën a rëy ci jamono bi ñu toll la ñu fexe ba mboolem lu ñu doon jéggaan yi ci àll ba ñu fexe ba jànguwaay bu mag boobu nga xam ne bokk na ci ay naalam yi gën a rëy bokk it ci naali Sëriñ Tuubaa ñu fexe ba amal ko ci dëkk bi ba li ñu daan génn di ko jéggaan yi Euh, ci ay xam-xam yoo xam ne léeg-léeg nit ki dem jéggaani ko ñëw mu ànd ak leneen loo xam ne sax bokkul ak li mu doon jàng wala lu bokkul ak fi mu jëm si université bi bokk na ci li nga xam ne mën naa dimbali ndaw ñi wala lu dem kon xam naa ginnaaw waxtu bi dafa dafa xaw a mucc lii mooy ataawul ataawul masaayix haza hada min ataai rabbika wa ma kana ataau rabbika mahduran wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin di sant bu baax borom bi te mu waral jataay bi ñu di ziar bu baax sëriñ Sidi Mbacke ginnaaw ba ñu sante sëriñ Sidi Moxtaar xalifatul am du tarixatul muridiya ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba mu eggalee yéeneem ci ndono lii ñu doon waxtaanee te ñu ànd ko ak moom te lépp dëppoo ngërëmal Sëriñ Tuuba ñu siyaare kon sëriñ Sidi bu baax a baax sëriñ Moustapha sëriñ Amsa mi fi toog ak njabootu Cheikh Abdoulaye Lahad képp euh, di sant bu baax ci biñ egsee sëriñ Amsatu dañoo bu ñu amul woon xalaat it bi egsee rek daf noo inspiré mu di dañu ñëw rek gis maxtu mu rëy mi mu sol nga xam ne koo gis xam ne murit mu waxit méthodologie ni nga xam ne noonu lañ war a waxtaan wi mu lay xamal ne àddina loo ci organiser ak méthode ak organisation dana jag lu ko amul bu baax kon ñaar yooyu rekk bu ñu amul woon xalaat ku ci xalaat rek turas bi ñu wax dañ ci daje mën a wax lu bëri euh, di sant bu baax sëñ Xalil ci waxtaan wu leer wi ak laaj yu am solo yi suma mbokk def euh, mu tàmbalee ci turas ci Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jaar ci xadimu rasul ak euh, ci suñu sang bi suñu maam sëriñ Abdoulaye Laxat nga xam ne boo dee seet xadimu rasul boo seetee ci baat yi mu wax léegi nga xam ne aada dugg na ci biir dafa bëgg ñu daw aada yenn yi wax na ko am na yu baax am na yu bon mu indi àddina fexe ba yeesalaat lislaam ni ko waxee fexe ba itam nit ku ñuul ki ñu doon ñu am ci wàll wu wér a wér ndax dañ cee nekkoon taay bi waaye wane na ne lislaam inna diina indallaahi lislaam waaye wane na ne itam lislaam ñëpp ci am wàll kon boobu accord nag bu am solo la boo xam ne def na ko pour l'humanité tout entière waaye ñu xool ne Xaadimu Rasuul moomu ni ñu ko daan waxee demoon nañ ba travestir alxuraanu karim ndax daa nañ ci bandaan lu ci mayee soxna alxuraan joojee mu dellu si loola wan ginnaaw boo yëfu nekkoon wala leen yàlla rek mooy buur Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy yëkkati raay raayoo laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam ba def révolution boo xam ne am jàngalee ngi ci biir turaas bi mu ëmb ko ba mën a jàngal àddina gi waaye du ñu ñu ne doomam yi mu fi bàyyi itam di tàmbalee Cheikh Mamadou Moustapha jaar Cheikh Mamadou Fadal ba ci Cheikh Mamadou Mourtada kenn ku ne Cheikhul Khadim dafay roofu ci sa jëmm di la jëfloo di la ñu gis ne Serigne Abdou Lahad man ni ma ci gën a maîtriser nga xam ne yàlla def na euh, danaa ci egsi waaye ñu xool ne jëmm ni nii di wax ak yéen yoo xam ne Serigne Abdou moo ko defar defar nit weesuwul jàngal la jox la métier ba nga am sa xurriya iqtisadiya sa indépendance économique loolu sëriñ Abdou Lahad laa koy sant moo ma may bu ma jàngi bitim réew moo ma dugal ma dugg ci administration sénégalaise ba lu ma mën ma mën ko ci ma jege ko loolu xam ko bu baax si ji gay mi fi nekkoon bu ma masaan ñëw dafa ma wax ne ma lagg si gaaw ndax ñu gis euh, sama ñu gis ba ñëw alhamdulilah ma ne sa ci wax lu bari waaye waxtu bi dafay xaw ñu gis ne kon boo xoolee juróomi xulafaa yi nga xam ne ñoo fi ne boo limee ñaar teg fii muy Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Mamadou ci jafe-jafe ya diggante ñaari guerre ya mu wéyal fii lii fi Xaadimu Rasuul tëral te lenn du ko wecc Cheikh Mamadou Fadal ñëw ak yërmande ja yaatal ko yàq ni ko ba ñépp ñëw mu xamle loolu ci bu wër ci ak yeewu goo xam ne dafa am ay tajaare nga xam ne dafa génn xam ne xew ba pare xam ne ñooña firi ko lañu ña jiitu lañu bëggoon a wéyal muy Cheikh Mamadou Moustapha tàmbalee Cheikh Mamadou Moussa Cheikh Mamadou Fadal te ñu wéyal liggéeyu Xaadimu Rasuul mu expliqué ko jàkkaarloo doomu aadama yi bu plan de communication bu wér a wér ñeneen ñi ci des waxaa expliqué na la jiitu waaye waxaale nañ ñu ñëw muy sëñ Abdou Khadir ak sëñ Sall ba jëratul loolu ñuy wax ba buñ ko fàttalikoo sëñ Sall doon wax naan joxe bi dafay jiitu laaj bi kon loolu dugg na ci cadre boobu kon sëñ Abdoulaye mooy courroie de transmission bu yoonu murid bu doon moteur la ma ne mooy courroie wala ceinture de transmission li nga xam ne mooy loolu te ni mu ko leerale moo di def na ko li ma ko mën a méngaleel mooy naaf boobu bi nga xam ne bi mu daataan am dañoo ruuj ji ba mu ñor ñu naaf ko sëriñ Abdoulaye ñëw bàcc ko jëri ko ba mu des gerte bu set wecc mu xolli ko ba mu des kemb boo xam ne ji dindi na buuse ba dindi na sax sax sa sànni bàyyi fa jiw woo xam ne moo fa des mu ji ko ngir ñu nekk ci ginnaaw jiw woowee nag naka la ñuy fexe ba aar ko defe naa ne loolu mooy tuwaas bi ñuy wax ci Cheikh Abdoulaye Lahad seet ba xam euh, wala baladu tayyibun yuxriju nabaatahu bi-izni rabbih kon amal nañu jiw jiw woowu nu ñu koy fexe ba sàmm ko ba mu am valeur bi nga xam ne daf koy am te bañ a soppiku te du bari kon la ci gën a baax ci plan de travail mooy boo ñëwee fekk ko fi ca suuf ngay fekk mu toog euh, régler na problème yu bari ka bëgg a toog ca kaw day toog ca kaw ka bëgg a toog toog ci suuf toog ci suuf te du gêné kon ñemeel na ñëpp sëñ la loolu du ci amul solo la day wàcc ba tolloo ak doomu aadama bi boo toogee ak moom sax fi ngay xamee ne da koo war a fonk mooy da ngay gis woyof googu bu ko def na nga ah doomi Sëriñ Tuubaa ji mel nii kat wax dëgg yàlla ba nga koy gën a di ko gën a bëgg di gën a bëgg lam lay wax doo ko tey ndax pédagogie boobu la am ci comportement euh, loolu moo am ci sëriñ bu ko defee dañuy wax ne inna allaha ama ala libaadi bi xudrati xudratihi wa kallafahum min ashukri bi xudrati xudratihim euh, suñu borom bu leen indeel xéewal sant ko rek ngay def sëriñ Abdoulahi Mbàkke xéewal la ci yoonu murit euh, li xew léegi gis nañ ko ci ay jàng wala dara lu mën a doon ñëpp fii ñëw parce que patriote lañ ñoo bokk réew mi te mënuñu koo séddoo waaye bu ñëwee day jox une part entière bu waxee ñam war a wax gan ña ba dalal leen ba noppi nag day wëri bëcciku nag ne maa ngi dem ci sama moromu taal bokki taali bi wax ak ñoom boobu plan de lu am solo la ndax taalibe Sëriñ Tuubaa yi dañoo mat a fonk ndax lépp lu am ñoo ko waral te Euh, lii sëriñ bi doon wax ci teggin euh, kenn ku ne sa xel war naa dellu Cheikh Ibrahima ñu jàngat li mu instauré ci yoon bi ci ay teggin moo xam ci comportement ci waxin ci jëfin ñu analyser ko euh, da ngay wax ni benn baat dong mu doon baatu jàmm taw ay mënoon ca juddoo lépp di jàmm nit dalay fen bu dee Europe da ngay nit dalay fen ba noppi ne la pardon bu dee Sénégal la bu ko defee day wàññiku rek daal di bëgg a wax leneen bu ko defee nga ne ko jéggulu jéggulu muy baat boo xam ne rek jàmm lay daal di ñëw kon yoon wi am na langage boo xam ne dañ ko ca def lu mat a wéyal la kon trace bi mu wax lu mat a sauvegarde la sàmm la kon naka lañ koy sàmmee ba nga xam ne day wéy di wéy ndax plan de travail la woon projet de société la woon projet de société nag tant que eggagul dañ koo war ji wéyal li koy wéyal mooy ñu référé wu ci ñi nga xam ne ñoo jiitu woon te teg fi loo xam ne dara gënul ba àgg ci léegi laaj bi ñu doon laaj léegi ci ñi nga xam ne dañoo bokk ci Sëriñ Tuubaa ba noppi di yor seen gi suñu bopp la nature a horreur du vide wax na dëgg fépp foo xam ne vide na rek da nga fa fekk leneen te nga waroon caa def dara da nga fa fekk leneen lu fa toog loo xam du la neex bu ko defee ñu jéem a occuper terrain bi yépp ci lu baax ak ci yiw ak ci ndono loo xam ne lu yomb la ndax ñoom defal nañ ñu ko ni ma waxee léegi Serigne Abdoulaye xolli na gerte gi jox ñu jiw woo xam ne bu ñu ko jiwoo dana naat te dana sax incha allah kon euh, foofu euh, lañuy euh, taxaw ndax temps bi. buñ doon wax fii ba suba itam du jeex waaye daal nañu xam ne jom xam-xam d'abord moom la sëriñ bi wax ini ujaahidu bil ulumi wa bi tuqa muy xam-xam boo xamee ba noppi nga jëf di liggéey dëggal loola valeur jom ak ngor yooyee ñu bàyyil ko fi dañ ko war a sàmm ak di joxante ay cër loolu it lu am solo la parce que particularité la ci mouridisme te dafa mel ne ni valeur la yu ñu bëgg a perdre euh, kon na ko sëriñ bi defe woon nañu fexe ba turaas bi bu ñu ko bëggee wéer ñu jàppee ko noonu delloowaat ca na ko man yi daan defee parce que lu jamono soppiku soppiku na ko sëriñ bi bëggee woon moom du soppiku mukk ci àddina kon alhamdulilah li ñuy wax balay weesu at baatiina maadaama rabban wa axrisil uuda maa daama labnan euh, bu fekkente ne da ngay euh, argile da nga ko bëgg a fabriquer ca ba mu nooyee nga koy def bant bii ca ba mu tooyee nga koy jëmbat kon waxtu bi jot na ci ñu topp ci loolu mag ñi defoon ngir lii fi nekkat particularité boo xam ne ca yonent ba ba léegi amul fenn ay ñoo xam ne ñoo jóge ca maam maaram yor ak jikko yu rafet ñëw ba ci waa kër Maam Mor Anta Sali ñu toppante ci loolu daaw fi aada ba ñooñu tabax loola ba mel nii nga xam ne addina bi yépp Touba leer gi mën na jul jollee Touba defar addina loola buñ ko amee sàggane ko danañ yaafus danañ nekk ay yëmbam kon alhamdulilah ne kenn ku ne jël responsabilité ñu fexe ba loola jàll kon euh, fi ñuy terminer rek dañu qiimatu kulli imriin ah maa yoxsinuhu kenn ku ne ci li ngay peese li ngay mooy da nga peese sa bopp ci def lu rafet ci jëf lu rafet lu baax bàyyi ko fi muy ndono li kon ñoom bàyyi nañu ndono loo xam ne fu ñu ci jàppee dana ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala